ci xew. waa xale bi xew ci jamono te man sa revue de presse rek laay déglu waa léegi kon nu bàyyi laa kàddu gi caas yëkkatil. jërë ngeen jëf door ci observateur mi xëy dikk ñun ci lu aju eh, ci koo xamante ne ji Karim Bourgi la tudd Karim Abdoul Khalil Bourgi eh, di mag wala rakk ci Bibo Bourgi yéen kaay bi nañu eh, balaayo Karim Wade démarré ba léegi kenn gisu ko tribunal ndax dafa daw waaye moom li mu xam ci procès Karim Wade li mu xam ci mbiri Karim Wade bañ na ko ba chaque jour tribunal mm, turam la fay wax yéen kaay bi nañu bu ñu sàgganul bu dikkul layob Karim Wade dina yeex a sotti ndax lim ci xam moo bare yéen kaay 300 millions lolé lay am at mu nek mom momé nga xamanténi ne ji moo Karim Bourgi actionnaire la ci société yu bari li mu moom lépp wax na ko waaye nag wax wa commission instruction cour répression enrichissement illicite ba noppi eh, ca la nak nané kaani jël mboy gi ken xamul fan la fété journal bi nañ moom fugitif boobee nga xamanténi ne ji eh, waroon na bokk tay ci procès Karim Wade bu ñëwul yëf yi kon dina naqare lijjanti observateur gën ñu xamalé li nga xamanténi duggal nako fi mu don actionnaire li mu tekki ci réew mi liko duggal ci layub Karim Wade lépp mi ngi ci biir yéene kay bi nga xamanténi ne ji moo observateur waxtaan nañ ko démb ci tribunal aw turam Sud Quotidien nañu tribunal démb la ñu fa wax loolee fa gën a tuuti ne jamono ji nga xamante ne ji ñoo ngi doon leeral ay société offshore yu ñu créé ca nuñu Bibo Bourgi moo ko moom daanaka dañ faa bàyyi woon wax joojee di wax mbiru Petrotim mbiru Alioune Sall loolee moom mooy coow li amee woon tribunal ba Sud Quotidien dellu si wàcce Walf Fadjri nañu buñ ci yéenaale kenn Karim Wade ci boppam moom moo fa indi wax joojee ndax lu aju ci euh, mbirum Petrotim bi ñu doon wax ci tribunal ba Karim dafa meloon ne euh, ku doon kokkali ak di keñet loo waasal leen mu di Macky Sall ak rakk ji Aliou Sall ci jamono ji nga xamante ni jikkoon tudd nañ ko lan la fa wax dëgg-dëgg populaire xëyee ko ci xët mu njëkk mu di le Karim Wade wax ci kanamu tribunal ba yéen kay bi nañu lu aju ci nga xamante ne ji moo di layob Karim Wade jamono ji président cour ba waxee ne Karim Wade ndax am na looy laaj ki nga xamante ne ji moo di faatu Mballo bu cabinet Pape Sambare Diop Karim ba mu jugee ñoom Macky Sall la doon gaaral ndax li ngeen gis moo ko wax nee na lu aju ci réew xamante ne réewum ala xam la dans un pays X euh, ku wax bour Fatick bu dee joxe ku wax bour Géejawaay euh, laata muy égalé question ba populaire nañu ci lako ko juge ba daal di dagg ñu ne ay bour Fatick yi bour Saalum bo bëggé xam lu bour Fatick di tontu demal nga laajal ko sa bop, mais di poser question ci ginnaw ko xamante ne ji nekk ko fi lolé bokul ci loyauté populaire moo dikk ci ñun ak lolé, mun nañu ci tribunal la xewé, tribunal booba Sud du Quotidien Le Quotidien kon xëy ci dem mais neneen la ci demee li mu seetlu mooy tribunal bo Dakar mu di palais de justice la Dior ben moo ña fay dem manque d'information confusion dañ koy dund wala confusion ci saal kuñu wara ñu moy tok di xaar euh, wala boo ku ñuy atte muy wër saal ba ba atte ba jeex euh, ak it euh, lu aju ci ñi nga xamante ne fay dem soxla walu yoon kan du leen wax fan lañu wara jaar lolé lepp daal yéene kaay bi nañu tribunal la fa xew moo di temple des lamentations barab la bo xamante ji ay ñaxtu yi neen la lolé kon luñu wara war la ki ñu lijjanti ay mbiram bu mu fété bor mi ngi ni ci libération ki moy Cheikh Sidia Bayo moy opposant gambi bi nga xamante ji Sénégal la nek yéene kaay bi nañu mom Cheikh Sidia Bayo kilifay réew mi jël nañ dogolu delloo ko yóbbu kon fi nga xamne modi France Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur dëggal nako nak dembu tay ji ci ngone la ko yóbbu ben vol corsaire moko ko yóbbu nak ngir dem taxna jamono ji nee dafa feebar dafa amee infection pulmonaire mom sidia Bayo bëggul dem fi nga xamante ji kon ci rew bu France libération ñu wax lolé direct info nañu nak ay avocat ñi ngi def kemtalay katan da nañu dem sax ci Quai modi ministère affaires étrangères bu France ngir clamé yëf yi waaye am leneen direct info xey xamal moy coup d'état bi ñu doon wacce Gambie am ben télévision privée bu nek fi ci Sénégal bokk na ci yëf yi nee nañu télévision boobee dafa encaissé xaalisa milliardaire bii di Thierno Ndiaye moo ko fay ab Gambien la moom it mi ngi ci ginnaaw coup d'état bi euh, ma nga ci États-Unis li mu bëggoon moo di bu coup d'état ba jàllee mu utiliser chaîne de télévision Sénégal boobu wax ne moom mooy président bu Gambie yëf yi nag sottiwul waaye li leer ba leer direct info nañu facture bi moom euh, moom milliardaire bi kon fay na ko li desoon rek moo di ñu daal di koy leeral Cheikh Sidiya Bayo moo di kan ak ay jaar-jaaram observateur dem na ci ba jeex du dara lum ñu bàyyil bokk na ci li indi xeex bi muy xeex am njàngam ca France demam nga ca PSG ak it wàllu business am lépp observateur kon dem na ci ba jeex ngir gën ñu koo xamal li ñëpp xam umpul kan mu di Coupe d'Afrique ba ñuy waajal le soleil xëy ñu xamal ni njiitu réew Macky Sall démb ba jox leen drapeau bi photo baa ngi nii ci xët a dooleel ba leen ci sax ne dina leen jox ndam campagne lu am solo mu 30 millions joueur bu ci vous bu qu'un ne gagner nañu coupe d'Afrique. Afrique bi tey mooy dikkat ci loolee ci xëta mu njëkk mu président Macky Sall ak li mu di gayndey bu coupe d'Afrique, bi 30 millions par jour l'olé le président Macky Sall wax observateur nañu mais nag am na lu ci am ndax ki nga xamante de ji moo di Diafra Sakho moom du mën a bokk ci gaynde yooyu ndax légui leer na euh, blessé na euh, Diafra Sakho officiellement forfait kan moko wara wut sport xëy ci dellu si waat ak ni gis ne noonee kon la wara a mën Moussa Konaté ak Henri Saivet yéenekaay bi nañu ñoom la gis kon comme solution solution nañu ko wuti ci SGBS lu ko mooy kër ga dina daanu lan moo tax directeur bu bees ba fa nekk yéenekaay bi nañu ñi nga xamante ne ji noonu lay euh, doxalee di daq ñi euh, bénéfice banque ba di daanu ak yeneen ak yeneen li tax yéenekaay bi di laaj lu DG yan ñëwul ngir liquider SGBS Pape Ndiaye oui ñu yëkkati wuy ma. oui bul dem dégg non damay dem nag. waaw ah, wax nga dëgg. waaw maa ngi ñëw <laughs> maa ngi wàcc maa ngi wàcc maa ngi